asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi sant suñu borom tabaraka wa ni mu yellee ci jëmmam ji te as njaamam lott ci lool waaye di julli tey sëlmal ci sangum ñaari way ndi ji bopp yi sayyiduna muhammadin sayyidul kawnayni wattaqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu Rasul di leen nuyu nuyoo bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole te mooy nuyoob lislaam bi nga xam ne moo tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke nuyu bi nga xam ne waa aljanna moom la ñuy nuyoo te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñiy teewlu tey topp seen télé Rewmi TV ci canal 40 wala book ñu koy topp ci Rewmi FM 97.5 seen émission keppaaru mag ñi ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Serigne Bara Mbacke ñoo dellu siwaat di leen nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo ci immeuble alxaaji Mouhamed Lamine Bara Mbacke ngeen baaxoo ko am dimanche bu jot te di ci ànd ak seen mbokk sëñ Bara Mbacke nuyoo boobu ak ziyaara boobu ñoo ngi ciy jiital borom ngëneel a Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom mi nga xam ne moo amee jataayub Cheikhul Khadim di ko ñaanal borom bi tabaraka wa taala ko kattan waaye bàyyi ko am xelam waaye guddal aw fanam ba mu mottali ay naalam nay naal di yeggale tey naala di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottan ñun ñu koy seere noonu it lañ koy ñaanale kalifa bu tedd bi nekk fa Tiwaawoon amee jataay maam Seydi Hadji Malick a Cheikh Aboubacar Sy Mansour moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko ba mu mottali mbooleem ay naalam ci kër maam Seydi Hadji Malick waaye noonu lañ koy ñaanalee a Cheikh Ahmad Tidiane Niass mi nga xam ne moo amee jataay maam Abdullahi ñas ak Cheikh Mahi mi nga xam ne moo amee jataay Cheikh Ibrahima ñas fa Madina Baye ak mboolem xalifa sénéro yëpp noonu it lañ koy ñaanalee xalifa bu tedd ba nga xam ne mooy Baye Hassan Seck moo nekk Canaba waaye maam Cheikh Bekay bi nga xam ne moo nekk fa eh, Ndiassane waaye noonu lañ koy ñaanalee maam Thierno Basir mi nga xam ne moo amee jataay Cheikh Omar Fouti waaye noon lañ koy ñaanalee mboolem xalifa sénéro yëpp fépp bàyyiwut fenn waaye ñëpp bàyyiwut kenn mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fi leen baaxoo nuyoo te di leen fi baaxoo ziyaara te mooy seen télé Rewmi TV waaye seen émission bi nga xam ne mooy keppaaru mag ñi ngeen baaxoo ko am dimanche bu jot di ci ànd seen mbokk sëñ Baara Mbàkke waaye keppaaru mag ñi it di baaxoo ñëw ci benn ñu waxtaane kenn ci suñuy mag wala bokk ñu tànn lenn ci njàngale mag ñi nafaraat ko niñ ko baaxoo defee dimanche ci yii weesu rek mooy téere Serigne Touba boobu nga xam ne moo tudd majmua mooy téere bi nga xam ne a Cheikh Abdoulahi Ahad Mbacké moom Cheikhul Khadim moo ko dajale woon te dajalee ci ay lettre ak ay dénkaane ak ay bind yoo xam ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu defoon na ko ci ak dundam waaye mu dajale woon ko binduloo ko ay doomi boppam ñu bind ko mu móol ko ne nañ ko tasaaree ndax kat maane so teewee moo ne amatu fa place ndax kat moom sëñ bi lim bindal boppam daa gën a wér mboolem lu ko waay man di waxal lim bindal boppam da koo gën a wér kon lenn ci mbindam yooyu incha allahu taala tey moom lañ fas yéenee jukki incha allahu taala comme niñ ko baaxoo defee waaye nafaraat ko lii ab leetar la boo xam ne kenn ci ay bokkam la ko bindoon ab leetar boo xam ne a cheikhul xadim radiallahu anhu moo ko bindoon tey ñaari leetar lañuy indi benn bi kenn ci ay mbokkam ay doomi baayam Sidil Muxtaar moom la ko bindoon waaye beneen bi it doomi bàjjanam waaye doomi nijaayam Sëriñ bu Buso moom la ko bindoon li tax ñuy indi ñaari leetar yooyu benn lettre bu ci nekk dafa ànd ak ak xasaayid wala ak xasida goo xam ne am solo si foo ko takk romb na ko ñoom moo ñaari ñaari yooyu wala boog ñaari lettre yooyu moom lañ fas yéenee andi tey suñu ci suñu émission ngir décortiquer ko ki koy dégg man cee jariñoo bu ci njëkk bi dafa wax a auzu billahi min alshaytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim min taala qadimi almustafa sallallahu taala alayhi wa sallam muhammad ibnu muhammad ibni la habibi alganiyi billahi taala an kulli rabbin wa kulli tabib dafa wax ne maa ngi muslu ci yàlla mi nga xam ne moo mën a musal ab jaamam ci seytaane seytaane mi nga xam ne dafa ñàkk yërmande suñu boroom te ni mu ñàkkee yërmande suñu boroom ni fas yéenee ñëpp ñàkkee ko moom maa ngi ñaan yàlla mu musal ma ci seytaane moom mi nga xam ne dafa ñàkk yërmande suñu boroom te ni mu ñàkkee yërmande suñu boroom ni la fas yenee ñëpp ñàkkee ko moom daan ne bismillahi rahmaani rahim ab jullit lépp lu muy def wala mu koy wax ci bismillahi la ko war a tàmbalee ndax mooy tax yàlla def ca barke te alayhi salaatu avant l'islam di ñëw bismika allahumma la doon wax waaye bi islam dikkee bismillahi rahmaani rahim lay tàmbalee ay waxam kon bismillahi rahmaani rahim mooy lan mooy tudd turu yàlla lay tàmbulee lu may wax ak lu may jëf bismillahi mooy tudd turu yàlla lay tàmbulee lépp loo xam ne moom lay wax wala ma di ko jef ci turu yàlla rek laa koy tàmbalee waaye mu ne arrahmani rahim mooy yërmande yàlla ji nga xam ne dafa yaatu ci diggante àdduna ak nga xam ne yàlla seetteewu ci ñi ko gëm ak ñi ko gëmut wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuhaa alquran nee na yow doomu aadama bii dund moo xam gëm nga yàlla moo xam gëmoo yàlla ak diine joo mën a nekk jéemal a wàññi rek xéewal yi la yàlla defal soo jugoon ngir bëgg koo compter doo matal wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuhaa soo jugoon ngir bëgg a compter wala calculer xéewal yi la yàlla defal xéewalug juddu maanaam am na ci ñoo xam ne fa leen seen way jur wu jigéen ëmbee avant ñuy am ñetti weer suñu borom dogal na ëmb ba tuuru na waaye am na ci ñoo xam ne nga xam ne boo bëggee jàngat xéewal yi la yàlla defal yow doomu aadama bi ci bi doomu aadama bi doone toq man yu suñu borom sàmm ko ci biirub yaayam juróom-ñetti weer juróom-ñeenti weer ba nim juddoo nga xam ne fa muy juddoo am na ci ñoo mbooloo mu fa juddoo moo xam ne jotuñoo jooy jotuñoo dugg àdduna te seen biir yaay lañ faatoo yàlla xéewal gi mu la defal nga juddu mu defal la nga feeñ àdduna man yuuxu waaye toll ci mën a nàmp waaye toll ci mën a wax mën a raam mën a dox mu jox lay bët jox lam xel nga màgg ba toll ci war a xam dara ba mesure suñu borom defal la xéewalu nga mën koo jaamu wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha xéewal googu suñu borom seetiwu ci ku ko gëm ak ku ko gëmul mboolem ko juddu di mbindeef rek suñu boroom dawal na ay xéewalam ci yow mooy arrahman waaye lan mooy arrahim mooy ëllëg nag bi defee loolu mbindeef bi wala doomu aadama bi mu gënee àdduna suñ borom jox ko xéewal yooyu da koo bàyyi akum xelam nag wan ko yoon wu baax wi waaye wan ko weneen yoon wi nga xam ne mooy ñàll wi wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili yàlla bi mu ñu xamalee li baax xamal ñu lubon bon daf nañu nag ah lii mooy yoon wi lii mooy ñàll wi jaar leen ci yoon wi tabayi fi ñàll wi ndax képp ku jàll ci ku jaar ci ñàll wi bu ëllëgee doo bokk arrahim doo danga koy dégg waaye doo ko séen da nga koy dégg waaye doo ko gis kon arrahman ku ko gëm ak ku ko gëmul amu ci seete waaye arrahim nag képp ku topp njàll wi ëllëg boo dikkee doo ci bokk mooy xéewalam gi nga xam ne ëllëg mboolem ñu ko gëmoon te toppoon ndigalam rekk ñoo koy xéewaloo moo tax ñaari ibaara yooyu la sëñ Tuubaa tàmbalee leetaram bi mooy aoudu billahi min alsheytaani rajim waaye bismillahi arrahmani arrahim daal di daldi di maanaam euh, leeral leetar bi ci kan la jóge mooy daf cee daf ko adressé daf cee def adresse am mooy kane dafa wax ne min abdillahi taala qadimi almustafa sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne min abdillahi mi ngi bàyyikoo ci jaamu yàlla bu kaw bi waaye xadiimil Moustapha sifa la ci mooy ci jaamu yàlla la bàyyikoo nga xam ne moom loolu it jàngat bi ñu ci mën a am muy bu am solo mooy moom du fëgg dënnam ne man Moodu Mbàkke maa ko bind wala man Ahmadou Bamba maa bind déedéet min abdillahi la wax rek ci jaamu yàlla la bàyyikoo ci jaamu yàlla la bàyyi ko waaye jëwriñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam min abdillahi taala qadimi almustafa sallallahu taala alayhi wa sallam kon moom leeral na leetar bi ci kan la jóge ndax ci jaamub yàlla la jóge jaamub yàlla boobu mooy kan mooy jëwriñu yonent bi alayhi salaatu mooy boo xamul kan mooy jaamub yàlla bi may wax jàppal ne aw meloom mooy jëwriñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci kaw suuf min abdillahi mi ngi bàyyi ko ci jaamu bi yàlla qadimil Mustafa kay aji liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kooku mooy kan Muhammad la tudd ba tey mi ngi indi nga xam ne yooyu badal la ci Abdullah Muhammad ibnu Muhammad bun Habibillahi al-Ghadi Muhammad la tudd nga xam ne kon bu ne min Abdillahi moom turu mi ngi bàyyi ko ci jaamu bi yàlla bu ne woon bu abdillah bu ne woon min qadimil Mustafa it ba tey wax ji dana jub bu ne woon min Muhammad ibn Muhammad it ba tey wax ji dana jub nga xam ne kon ñaar yi mu indi ay badal la ci abdillah loolu ñi jàng grammaire arabe xam nañ li ma bëgg a wax mooy ci jaamu bi yàlla la bàyyi ko waaye jaamu yàlla boobu jëwri ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam la waaye Muhammad la tudd mooy kon sayidina wa maulana muhammadin nga xam ne bi mu ne sayidina ak maulana ak muhammad ñoom ñëpp ba dal lañ ci sayidi bu ne woon min maulana ñu dégg ko bu ne muhammadin ñu ne xam ne muhammad lay wax waaye min abdillahi qadimi almustafa muhammad ibnu muhammad ibni habibil ghaniyi billahi taala jaamub yàlla la buy jëwriñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam Muhammad la tudd waaye nag Muhammad la tudd waaye baayam Muhammad la tudd baayi baayam Habibullah la tudd mooy min Muhammad ibni Muhammad ibni al-Habib al-Ghani waaye al-Habib al-Ghani moom Habib mooy al-Ghani min Muhammad ibni Muhammad mooy al-Habib waaye nag al-Ghani kooku di al-Ghani moom Muhammad nee ma tuddoon al-Ghani billahi taala mooy moom sëñ tubaa miy wax jaamu bi yàlla la buy liggéeyal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam muhammad la tudd baayam muhammad la tudd maamam habiballahi la tudd waaye mooy kan ban dayoo la am ci yàlla alganiyi billahi taala an kulli rabbin wa kulli tabib moom kat jaamu bi yàlla la waaye bu doyloo borom bi tabaraka wa taala an kulli rabbin mooy moom kat yàlla doy na ko walif beneen buur mooy que ne mënee sut moom yàlla da koo doy ma mënta jàpp ba mën mënatut a kenn muy buur ku dul yàlla tabaraka wa taala yàlla doy na ko ci lépp moo tax lu waay mën a indi ci moom moom jàppeewu la ngay buur moom benn buur la am wala kenn la jàppee muy buur te moom lay jaamu mooy rabbullahi mooy rabbuna tabaraka wa taala wa kulli tabib moom it jàppeewut keneen ab docteur ku dul borom bi tabaraka wa taala an kulli rabbin alxani billahi taala an kulli rabb wa kulli tabib mooy benn buur la am waaye benn docteur la am te mooy tabaraka wa kooku mooy ki bindi leetar bi ci kan la jëm ila aqihi fi llahi taala mbokkam wa fi lxarabati mbokkam ci wàllu yàlla waaye mbokkam ci jege ñaaleen gis nga sëñ Tuubaa toujours buy wax booy xool ay xasidaam da ciy feeñ léeg-léeg nga dégg mu jaa mu ñaanee ñaan woo xamante ni day matale wa jumlatil ixwaani min aqaaribi fi tiini aw fi diini wal ajanibi boo xoolee ci bul matlabul ni bi muy ñaan ba dem bay jeexal daf ne yàlla yàlla na nga musal bi muy ñaan yàlla defal ko jàmm waaye defal ko xéewal waaye defal ko kaaraange wa jumlatil ixwaani ak mboole mbokk yi la wax min aqaaribi moo xam jege ñaale yi la ci wàllu déret fi tiini moo xam jege mbokki yi nga xam ne maa ngi ñoom dañoo bokk maam aadama aw fi diini wala sax dañoo bokk jenn diine ju ñuy jaamu yàlla tabaraka wa nga xam ne kon ilaa aqihi fillahi taala mooy mbokkam la ci wàllu yàlla wa fi qaraba kon qaraba mën naa am te aqun fillahi taala mën a bañ a am ndax kat alayhi salatu wasalaam moo ni abu jahlil bàyyi bàyyi taxam la de waaye am naa mbokk mbokk fil qaraba yonent yàlla noox doomam ak soxnaam am nañ ak mbokk fil qaraba waaye amuñu ak mbokk fillahi taala kon moo tax mu ne ilaa kii fillahi taala dañoo bokk ci wàllu yàlla waaye wa fil qaraba yi dañoo bokk ci wàllu jege ñaale mooy dañoo bokk ci wàllu yàlla boo gisee mu jiital mbokk ci wàllu yàlla gi mooy que ne képp ku bokkal yàlla jàppee na la mbokk ak loo a bokk ak moom waaye lu ngeen mën a bokk te bokkoo leen ci wàllu yàlla yi moom jàppewu la moo tax mu jiital ila axihi fi llahi taala sama mbokk la ci wàllu pas-pas waaye wa fil qaraba it jege ñaale gi door a ñëw Seydil la tudd bun Muhammad sin najaaba baayam di Muhammad la tudd ta ku yàlla wuyu ak ñaanam la ku am ijaaba la fi llahi taala lu koy wax mooy salaamun am nuyoo laa koy jox yuxriju boo xam ne day génne min qalbihi ci ab xolam ashukuka sikk sàkka wa lëndëm lépp lu mu doon sikk sàkka wala mu doonoon lu lëntoon ci boppam nuyoo bii bu dikkee ci moom loola dana denc ci moom dana xam ne kii may nuyu nuyo bi ma ko nuyu wane na man ku ma fonk la salaamun yuxriju min qalbihi ashkuuka wa zalaam wa zalaam wa yudxilu fiihi al yaqin al yaqina wa nuura bila xeqadin wala malam day génne sikki sàkka ak lëndëmte waaye di dugal kóolute ak leer gu àndut ak daray mbañeel wala yeddaanga salaamun yuxriju min qalbihi ashukuka wa dalaam wa yudxilu fihi lyaqina wa nuura bila xeqadin wala malam mu ne kon mbokk mii sama mbokkum wàllu yàlla waaye sama jege ñaari bi Sidil Muxtaar bu Muhammad Sin Najaaba moom kat maa ngi koy nuyu nuyoo buy dikk dindi ci moom sikk sàkk ak lëndamte waaye du dugal ci moom kóolute ak yaakaar waaye ak leer gu àndut ak mbañeer ak yeddaanga amma baad ginnaaw loolu faqad warada alayna abu bakar maa ma warada bihi fa qultu xaamidallahi taala taala ilayka bi xurufin wa saaltukum min ajrin ginnaaw loolu ki nga yónni woon muy Aboubacar egsi na ci ñun àndaale ay addiya waaye nee naa ko nag na nga sant yàlla nee naa ko maa ngi lay digal nga sant yàlla mooy nee naa ko na nga sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci arafi wa ma saaltukum min ajir wa ma saaltukum wa ma saaltukum min ajir maanaam loolu li tax mu ne ko na nga sant yàlla ci aarafi wa ma saaltukum min ajr mooy wa ma saaltukum min ajrin in ajriya illa ala allah loolu daf cee tëgg ak xasida xasaayid googu moom la booleeg leetar bi muy jawaab ji moo tax mu ne ko mm, nee naa ko na nga sante yàlla ci xasida gii ma lay yónnee te mooy wa ma saaltukum min ajri moo tax mu ne ko wa ma saaltu amiran laka bil intisaari wa tasaburi an sayri wa arjuu min allahi taala an yataqabbala minni haadihi alqasida بقبول حسن مقاطبا لك ولغيرك من جميع إخوانك هناك من أولاد الوالد جزاه الله تعالى عني خيرا ورحمه وجميع والد والده وغفر له ولجميع أصوله وفصوله بجاه جنته بجاه جنتي وجنتي سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mu ne ko maa ngi lay digal amiran laka bil intisaar yi bil intisaari wa tasaburi ani sayf maa ngi lay digal nga xaarandi wala boog nga néggandiku ta muñandiku maa ngi lay digal nga néggandiku te muñandiku ta nag maa ngi yaakaar yàlla nangul ma xasaayid gi nga xam ne maa ngi la koy yónnee waaye nag yàlla na ko yàlla nangu nangun wu rafet xasida gi maa ngi ciy waxante ak yow maa ngi ciy wax ak kudul yow ci mboolem mbokk yi moo xam ku nekk foofu la moo xam ku nekk feneen mbooleem sama doomi baay yi rek min awlaadil walidi min awlaadi walidi mboolem samay doomi baay mu ne ko xasida gi maa ngi ñaan yàlla nangu ko ndax kat wax naa ceeg yow waaye wax naa ceeg mboolem samay doomi baay sama baay boobee nga xam ne yal na yàlla fay ko waaye yal na yàlla yal na yàlla fay ko aw yiw waaye yal na yàlla yërëm ko moom mboolem ay way juram samay maam te yal na yàlla jéggal leen wali jamii usulihi wa fusulihi moom mboolem ay cosaanam ak ay bànqaasam maanaam ay fereem mboolem ay maamaati maamam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci moom moom sama wayjur woowee ñaan gi ma ñaan nag maa ngi koy ñaan ci darajay sama pakk ba maanaam ki nga xam ne moo dox sama digg ak lépp lu may ragal wa jannati ki nga xam mooy sama ëllëg penc ma buñ fa dajee moom rek laa fa soxla muy sayyidil awwalin mooy sangum ñi jiitu woon wala axirin mooy say sangum ñi mujjee ñëw kooku mooy kan sayyidina muhammadin encore ba dal la ci sayyidi gu njëkk ga sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam taaliban min allahi taala laka ayuha almuxtaaru an yujsiyaka anni kathiran min quyuri dunia wal axira amin ya rabbal alamin mu ne ko maa ci yàlla yow siydil muxtaar yal na yàlla fay la yiwu bare bare bare bare bare yiwu adduna ak yiwu alaxira xasida googu mu ko doon wax naan ko maa ngi lay digal nga sante yàlla ci xasida ca xarafi wa ma saaltukum min ajri xasida googu nag moom lay andi daf ko tàmbale wa ma saaltukum waaw moo ci jiitu waaw gi def ne ci waqal xafiisu najla sayqi charra dunya wa uxra wa kafaahum durra mu ne ko maa ngi ñaan ci yàlla mi nga xam ne maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy aji sàmm ji alxafiz maa ngi ñaan mu sàmm la maanaam aji sàmm ji laay ñaan mu sàmmal ma la waqal maa ngi ñaan aji sàmm ji yàlla na ma sàmmal sama doomi sëriñ xam ngeen ne sëñ Tuubaa toujours bu waxee sama sëriñ ñaari li ëpp mi ngi jublu baayam bi ko jur ndax def koo jàngal xam ngeen ne ci histoire bu ñu ci Irwa un Nadim nee nañu moom bi mu tollee ci mata dal jàng bàyyam def koo dalal jox ko sëñ bu soobe sëñ bu soobe moog way juróom bu jigéen ñoo bokk lépp sëñ bu soobe ab diir la ko yor jox ko nijaayi boppam maanaam nijaayi sëñ bu soobe muy maami sëñ Tuubaa ndax comme nijaayam lañ ko jox nijaayam jox ko nijaayi yaayam kon daa mel ne kon maamam lañ ko jox muy tafsir Mbàkke Ndumbe tafsir Mbàkke Ndumbe moo ko yoroon doon ko jàngal bam tollu la tajidanna ashadda annaasi yàlla dogal tafsir Mbàkke Ndumbe wàccub liggéey bi Tafsir Mbàkke Ndombe la liggéey mu dellu siwaat ci loxoy baayam fa la doon jàngee alquran kon jàng gim jàngee ci moom alquran jàng ci moom xam-xam lu baree baree baree bari looloo tax li ëpp sama sëriñ la koy tuddee moo tax mu ne yal na yàlla sàmm doomi sama sëriñ ba na say sayqii charra yal na yàlla sàmm ko ci ay ay dunya wa uxra wa kafahum durra mooy adduna ak alaxira te yal na yàlla fegal ko mboolem lu ciy ay lor muy adduna ak alaaxira woomaa la wax kon waaw gi jàll na mu indi miim gi mu ni minhu bi jaahil Mustafa xayrin wala man lii bihi wahaba rabbi man lii ci mu dal ni euh, ci daraje yi Mustafa sallallahu alayhi wa muy ci daraje yi yonent bi alayhi salaatu laay ñaani yàlla may ma yàlla borom bi tabaraka wa taala may na ma ci ay saar ci daraja yonent bi alayhi salaatu muy sa suwari alquran seeni mbóot yàlla may na ma ko ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam alif gi mu ne asalu kawnakum maan fi salihin almuttaqin almuflihin annasihin maa ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala seenum nekk yéen samay doomi bay yàlla na leen yàlla def ngeen bokk ci saalixiin yi waaye bu ngeen bokkee ci saalixiin yi it yàlla na yàlla def leen ngeen bokk ci muttaqiin yi bu ngeen bokkee ci muttaqiin yi maa ngi ñaan yàlla def leen ngeen bokk ci muflixiin yi waaye bu ngeen bokkee ci muflixiin maa ngi ñaan yàlla def leen ngeen bokk ci naasixiin yi kon asalukum asalu kawnakum maan fi saalixiin waaye al muttaqiin al muflixiin an naasixiin mu tekki ne saaltuhu al allah yaxuula baynakum mooy maa ngi ñaan yàlla mu bañ def ab diggante seen di mu bañ a diggale dara seen diggante saaltuhu allah yaxuula baynakum wa baynahu aduwahu aduwakum wax ju xóot a xóot a mooy maa ngi ñaan yàlla yéen ci seen biir yàlla bañ a jaarale seenum noonu seen diggante waaye maa ngi ñaan yàlla it seen digg ak yàlla yàlla bu fa yàlla jaarale ab noonam xam ngeen ne diggante nit ak nit saa yu fa seenum noon jaaree ñoom ñaar dara du rafet waaye diggante nit ki ak yàlla saa yu fa noonub yàlla jaaree yi dara du rafet moo tax mu ne ko saaltuhu allaa yaxula baynakum wa baynahu aduwahu aduwakum mooy yàlla na yàlla bañ a jaarale seeni diggante yéen seenum noon waaye seen digg seen borom it yàlla bu fa yàlla jaaralee am noonam ndax su fa jaaralee diggan seen digganteeg yàlla saa yi fa noonu bi yàlla jaaree dara du rafet te mooy seen digganteeg seeni bokk it yéen seen bi seen i doomi bàyyi seen diggante saa yu fa seenum noon jaaree dara du rafet mu teg ci ne aataakumul xuyuura fi daarayni wa fiihima ankum nafala aarayni yàlla na yàlla dikkal leen aw yiw yi aw yiw yéen samay doom yi bàyyi mooy yàlla yal na yàlla jox leen lu baax aataakumul quyuura fi daareyn waaye nag ci ñaari kër yi adduna ak alaxira yal na yàlla jox leen yiwu adduna ak alaxira waaye wa fiihima ankum nafal aarayni mooy seen diggante yal na yàlla sàmmal leen ci yal na yàlla dàqal leen ci ay yeddaanga lépp luñ ngeen di yeddee yal na yàlla dàqal leen ko maanam yal na yàlla sàmm leen ba du ngeen def lu ngeen di yeddee mu daal ci teg ab dénkaane daal ni ne leen laa tatlubu siwaaridal ilahi muttabiina li rasulillahi kunu ibadallahi ya ixwaani bila taxaasudin wala udwaani mu ne maa ngi leen di dénk nag bu leen sàkku ngërëmal ku dul yàlla tabaraka wa taala waaye it bu leen topp sunnas ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy bu leen sàkku ngërëmal ku dul yàlla tabaraka wa taala ndax kat laa taata lil maxluuq fi maxsiyati li xaaliq bu leen topp mbindeef ci ak mooy yàlla mukk mooy bu leen sàkku ngërëmal mbindeef ci loo xam ne ak mooy yàlla lay doon tabaraka wa mooy bu leen sàkku ngërëmal ku yàlla tabaraka wa taala mooy nit ki mu la mën a digal ak lu mu mën a doon xoolal ndax lu yàlla gërëm la wala déet ak lu bu donte da laa jur sax nag donte sa ñaari way jur la lu mu la digal te yàlla digalu ko te yàlla gërëmu ko wallaay bàyyi ko fa te sàkku ngërëmal yàlla tabaraka wa taala soo la neexee bañal ndax kat tabaraka wa taala kenn du sàkku ngërëmal mbindeef ci kaw ngërëm lu wuute ngërëmam waaye bu leen topp sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy yoon yi ñall wi dafa ñall yi dafa bari waaye nag yoon wi nga xam ne mooy wi jub wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili as subul mooy ñall yi mooy topp leen yoon wi te bàyyi ñall yi ndax ñall yi kat mooy yoon yi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bàyyiwu ko fi woon te wuute naag li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam digle moo tax mu ne muttabiina li rasulillahi xoola mu teg ci ne kunu ibadallahi ya ixwaan yi doon nañ jaamu yàlla de ndax moom Sëñ Tuubaa moo wax ne mokkal alquran ak topp yàlla ak topp ndigalul kilifa ci mbàkke laa ko fekk waaye def ma ko ci maanaam fekkoon naa leen fekkoon na ay bokkam ñu baax waaye gën la indi mooy que ne fekkoon na leen ñu doon ay jaami yàlla yu jaamu yàlla tabaraka wa taala fekkoon na leen ñu daal topp sunna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye gën la indi lan mooy gën mooy tawaytu tariqa al qawmi waqtam tidaaxihi wali qad qada al xaajaati bi rawdi wal basti mooy dafa taxañ yoon yi yoon yi ñu daan jaar di dem ca yàlla mu xaw a sori sun borom tabaraka wa taala daf ko koo jegeel jox ko ay yoon yu gën a gaaw yoo xamante ni ci ne nit ki di gën a gaaw a àggee ci yàlla tabaraka wa taala loolu tax mu ne tawaytu tariqa al qawmi waqta imtidaaxihi mooy nit ñu baax ña yoon yan daan jaar yàlla taxañal na ma ko ci waxtu wi may tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon moo tax bu dee leen jaamu leen yàlla fekkoon na leen ñuy jaamu yàlla waaye nag bilaa taxaasurin wala udwaani jooji mooy li nga xam ne moo tasaaroo woon ci biir ay bokk parce que it boo diggee wolof yi di léeb naan kañaan kañaan booy wër këram néeg yi soxna yi nga koy fekk mooy que ne yi soxna yi baaxoon nañ mokkal daa nañ man alquran daa nañ jaamu yàlla tabaraka wa taala waaye taxaa taxaasud ñi ci néew dañoo mucc ñi maanaam ñi ci ñi ci mucc dañoo néew lool ak odduwaan ak noononte ñi ci néew ñi ci mucc dañoo néew lool xam ngeen ne bu ngeen delloo ci histoire senegal am na ci buur bu ñu naan Amari Ndeela moo nekkoon Bawal am na borom xam-xam bu mag bu ñu naan maam Malamine saar la jaaroon seen diggante ba tax maam Malamine Amari Ndeela raylu maam Malamine Sarr fiiraange képp la taxaasud ak odduwaan jooji mooy li jaaroon seen diggante ba tax Amari Ndeela raylu maam Malamine Sarr moo taxoon booba ca jamono jooja sëriñ si wala boroom xam-xam yi nekk Sénégal takku woon ne dañuy def ak kuréel ngir gare ngir xare ji ak Amari Ndeela ndax kat dafa ray seen bokkum jullit dañ ko war a rey loola moo indi coow loolee ba tax amari ndeel a jàpp ñuy jàmm rey ñii jàpp jàpp ñuy jàmm ba mam maharam dikkoon mbàkke doon def intervention ci lañ ko mayee dëkk bi ñuy wax mbàkke bawal kon kunu ibadallahi ya ixwaani bila taxaasulin wala udwaani bu ko sëñ tubaa waxee tekkiwul ne ñoom dañ daawut jàmm yàlla waaye nag taxaasud ak udwaan jooji moom la leen bëgg a wax ni leen liggéey leen ci lu ngeen mën lu ngeen mënta yàlla tax ngir jaamoo ko yàlla mooy jaamu jàng alquran waaye jaamu leen yàlla yi ci raxas seeni xol ci dindi taxaasut ak oduwaan mu teg ci hadis bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko wax mooy man xubba lil aqi lazi yuhibbu li nafsihi radiya anhu rabbu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na yonent bi aleyhi salaatu nee na du ngeen gëm mukk lu dul ne da ngeenoo bëggal seen mbokkum jullit li ngeen bëggal seen bopp mooy seenu ngëm du mat laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsihi alayhi salaatu wasalaam nee na du ngeen doon ay jullit seen ngëm du mat yàlla seen ngëm yàlla du mat mukk lu dul ne li ngeen bëggal seen bopp da ngeen ko bëggal seen bokkum jullit waaye boo sañoon da nga réussir da nga am ay oto da nga am ay sato sa liggéey sa entreprise dana jëm ca kanam waaye koo gis mu dikk tabax ab étage ci sawet nga ne bàyyi ko foofu rek nangam nangam nangam nangam sëñ bi yow kon da bëgg di am nit ñi duñ am wala boog da bëgg yow di yëkkati ci kaw te nit ñi duñ yëkkatiku wala nga yor entreprise say employé yi bëggoo kenn avancé ci koo ci gis mu génn ber liggéey boppam sax nga commencé koo mere boo ko rombee doo ko nuyu ah damaa war damaa nangam déedéet man xubba lil aqilla si yuhibbu li nafsihi radiya anhu rabbu mooy li nga bëggal sa bopp da nga koy yéene sa mbokkum jullit mooy boo la yàlla suturaalee nga am lu ne ci àdduna yéeneel jullit ñëpp am ko waaye boog yéeneel sa mbokk yépp ñu am ko ndax ab jullit day yaatu xol loolu mooy taxaasud ak odduwaan faaw nga raxas ko ci sa xol bam set yéene nit ñi jàmm yéene nit ñi ñu am mooy tax yàlla may la jàmm may la nga am nit ki lépp lum yéene mbokkum jullitam na jàpp ni ci kawam lay dal wolof yi dañ koy léem ni yéene néeg la te borooma cay fanaan loolu tax sëñ Tuubaa ne man xubba lil aqi la si yuhibbu li nafsihi maa radi li nafsihi radiya anhu rabbu mooy bëggalal sa mbokkum jullit li nga bëggal sa bopp soo ko defee yàlla gërëm la tabaraka wa taala mu teg ci ne alimtumul xaqa falazimuhu li nafsihi radiya anhu rabbu mooy na nga bëgg mooy xam na ngeen xam lu dëgg te taqoo ak moom mooy na ngeen xam lu liy dëgg te mooy liy dëgg tey dëgg mooy benn boroom moo am tabaraka wa taala ku waay mën a jaamu ku dul yàlla jaamu ko du wér te du la jariñ ñàkk maanaam borom bi mooy ki nga xam ne jaamu ko mooy dëgg ta mooy jariñ te ñàkk goo jaamu di du jariñ te di lor kooku benn buur la te mooy tabaraka wa moo tax boo xoolee ci ay beneen xasida bi may bëgg a indi muy bi mu waxoon sëñ Mbàkke Buso mi ngi ciy wax lu mel noonu ah, am na ci geneen xasidaam gu mu noonu wax naan yaa jumlatan qad tallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu loolu mi ngi amee woon ci daaru marnaan bi nga xam ne moom la bu moom la démba ngëri kalaame woon koog tubaab bi ne ko daa yónnee ay fetal ngir bëgg a xare te buur siin kumba Ndoofeen Juuf demoon ndar séeree séereetu séeree woon sëñ tubaab ne ko neet woon tubaab bi demal nga visiter këram damaa jëlale paaka waaye poso wala almet boo ko fa fekkee boo dikkee nga ma ma tayle la sama manto mooy que nga tiiree ma bal ma faatu nga tas sama jàmm loolu la bu buur siin ku ma doofin ju séeré loon sëñ tubaa foofa la ko waxee woon bi mu dem bi bi ko tubaab bi dikkee visité ba pare gisu fa dara nag mu def ay pexeem ba jàpp ko ci la ci la taalifoon xasidaam googu mooy yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu moo tax mu ne moo moo moo tax mu waxoon ci ne inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan wa wal muhayminu shahidu ci xasida googu la ko waxee woon kon moo tax mu ne alimtumul xaqa na ngeen xam lu dëgg waaye falaasimuhu na ngeen taqoo moom wa in taraw qatti fa akrimuhu mooy sama mbind mi sama mbind mii booba bi koy wax bi mu xasida gi sëñ Tuubaa mi ngi koy yónnee ay doomi baayam booba am nañ distance booba moom mi ngi ci géej gi ñoom ñu ngi ci jéere ji moom mi ngi Gabon mi ngi Gabon ci euh, loxoy tubaab bi waaye ñoom ñu ngi woon Sénégal moo tax mu ne leen wa in taraw xatti bu ngeen gisee sama mbind faakrimuhu na ngeen koy teral lu luñ koy teralee mooy jëfe teraa ngay mbind moom teraa ngay ndigal mooy jëfe teraa ngay ndigal mooy jëfe wayn taraw xat bu ngeen gisee li ma bind faakrimuhu waay waay na ngeen teral sama mbind nu ñuy teralee mbind mi mbind mi lépp ay ndigal la mooy kon nañ ko jëfe moo tax mu ne li wacci rabbiya katabtu daaya lakum wa naasian li ahdi raaya mu ne ngir jëmmi yàlla laa leen ñaan ne bind naa ko te sama mbind ñaan naa ci yàlla ne maa ngi leen koy digal ngir sàmm ngir maa ngi leen di digal ngeen maa ngi leen di laabiire ngir ngeen sàmm sama kóllëre sama digg ak yéen ni ngeen di sàmmee sama kóllëre ak yéen nag mooy li ma leen digal ngeen def ko li ma leen tere na ngeen ko bay ci la ya ne yaa ayyuhal kabiru ya muhammadu kun li siqaarika maan fa tahmadu hadaakum allahu siraatul mustaqim wa ankumu nafal la ayna wa saqim moo tax mu ne yaa ayyuhal kabiru yow mag mi yaa muhammadu ci la nag ci biir way woowu nag ci biir xasida googu ci la wàqanteeg nag magam boroom sàmm nga xam ne Sidil Muxtaar leen waxal maam Cheikh Anta waaye nag ci biir way wow ci la nag daal di soppi waxin wi daal di wax ak magam boroom saam ni ko yaa ayyuhal kabiru yaa muhammadu mooy yow kilifa gu mag gi yow muhammad kun li siqaarika mahan fa tuhmadu mooy nekkal say rakk kon dey danaa sant mooy nekkal ak sa rakk mooy uufal say rakk kun li siqaarika uufal say rakk mahan ñoom ñépp fa tahmadu kon ma sant la hadakumullahu siratal mustaqim mooy yal na yàlla teg leen ci yoonu siratal mustaqim wa adkumu nafal la aynu la ayna wastaqim mooy yal na yàlla fegal leen iblis moom mi nga xam ne yàlla da koo rëbb dafa ma yërmande suñu borom te ni mu ko yàkkee ni la fas yéene ñëpp ñàkkee ko ni moom yal na yàlla lafal leen yal na yàlla fegal leen liñ naan ak ràgg ak ràgg mooy ay wéradi ak yu ko niru mu ne mata mu daal ne borom saam mata raaytumul kitaaba fa alamu bi annahu nuurun lakum fa taslamu saa yu ngeen gisee sama mbind na xam ne ak leer de ah seenug leer la de ak leer la goo xam ne bàyyi ko ci man jëm si ci yéen kon nangeen ngeen jëfe ndigal nahaytukum amma naha anhu lkitab fa saarihu ila ilahi bil matab mooy tere naa leen la yàlla tere kon na gaaw jëm ci buur bi tabaraka wa taala te defee ko ci tuub mu kon na ngeen gaaw tuub jëm ci yàlla tabaraka wa taala mooy saa yu ngeen gisee sama mbind saa yu ngeen gisee sama mbind nangeen ngeen xam ne kat ak leer la leer gii nag li ci bëgg a wax mooy que ne tere na leen li yàlla tere maa ngi leen di digal waay waay waay na ngeen delloo tuub te jëm ci yàlla tabaraka wa taala daal di ne nabbahtukum wa innakum muntabihun nabbahtukum mooy maa ngi leeni yee waaye sax yéen yeewu ngeen wa innakum muntabihuun yéen sax fekkoon na ngeen yeewu ndax xamoon ngeen yàlla lu njëkk ma leen yónnee leetar bii waaye wa maa man akramahu laahu muhin waaye lépp loo xam ne tëralul yàlla na ngeen ko doyadal mooy lépp loo xam ne du teraanga yàlla na ngeen ko doyadal wa maa liman akramahu laahu muhin daan ne ko ijmaa sigaaraka wa faariqul xasad ruumu taxaabuban bi qalbin wa jasad mooy a ah, maa ngi lay digal nag yow yaa ayyuhal kabiru yow mag mi maa ngi lay digal nga dajale say rak te nga wax leen ne nañ dindi ak kiñaan seen diggante wa faariqul xasada mooy nañ tàqalikoo ak ak kiñaan ruumu maa ngi sàkku ci ñoom taxaabuban way way nañ bëggante te yàlla tax bi qalbin nag bëggante xol waaye wa jasad bëggante ak yaram mooy nañ jaxasoo ci wàllu xol mooy sana seen xol doon benn te seeni doom buñ mënee jaxasoo ci wàllu yaram wàllu mayantey soxna wàllu dëkkandoo wàllu dëkkanti wàllu dëkk wàllu dëkkoo waaye waaye nañ ko def ruumu taxaabuban bi qalbin wa jasad maa ngi sàkku ci yéen waay waay waay waay waay na ngeen na ngeen bëggante na bëggante ci xol waaye ci yaram daal ciy teg yi ne ko ah ndax sax nag jamaalukum seenu taar jamalukum ilmun wa saayun wa adab falaasimuha yunfa ankumul wadab mooy kat seenub taar yéen waa Mbàkke wala boog yéen askanu maaram wala boog yéen askanu mbusoobe yéen shurafa yi nga xam ne ci yonent bi aleyhi salaatu la seen càlla la bàyyi ko ilmun la woon de xam la woon de seenub taar xam la woon de wa saayun jë seenub taar jëfe xam-xam la woon wa adab seenu taar ay teggin la woon de kon falaasimuha waay waay taqoo leen ak loolu kon kat bu ngeen taqoo ak moom yun fa dana leen dàqal ankumul wadab mooy dana leen dàqal mboolem lu yàlla di tere wala mboolem ay ayib xoolal dénkaani bii nii la ko waxee mu ne ko seenu taar yéen waa askanu Mbàkke wala seenu taar yéen doomi maaram wala boog yéen sëti maaram seenu taar yéen shurafa yi nga xam ne maam Fatima mooy seen maam waaye yéen surafa yi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yàlla yéen la ma booleel ak bokk naka jëkk li tax yàlla dogal ma wàcc ci seen biir mooy sa ilmun wa saayun wa adab mooy xam-xam jëfe xam-xam ak ay teggin su ngeen ko defee de falaasimuha bu ngeen taqoo ak yooyu yun fa ankumul wadab mooy yàlla dana leen dàqal mboolem luy ay ayib daan ne ko ruumu imaanatal quluubi li samad ruulu ruumu amaanatal quluubi li samad arrafiai samaai min xayri amad na ngeen sàkkoo jéngal seeni xol jëmee ko ci yàlla yàlla kat mi nga xam ne mooy ki yëkkati asamaan te amul kenn arrafiai samaai min xayri amad xam ngeen ne asamaan da ngay tiim da ngay di xool ba fa sabat yaram rek waaye gisoo benn jën wala benn poto bu ko yen ci genn wet kon na ngeen jéggal seeni xol waaye jëmee ko ci kilifa gi kilifa gi nga xam ne moo yëkkati asamaan te boolewu ko benn poto daan ne nag wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu lahiqun wa balligh salaami ila al wa shaqiqati wa xayrihima mimman hunaak wasalaam gis nga li mu wax mu ne ko asalaamu wasalaamu aleykum wa rahmatullah kon tëj na leetar bi waaye mu ne ko nang ma jottalil am nuyoo sama woy jur wu jigéen mbokkam mi mbokkal ndey ak baay booba maam Seex lay waxal kon maam Anta Njaay Mbàkke ndax xam ngeen ne sëñ gaawaan bi mu fekkee sëñ Touba Gabon ndax sëñ gaa booba sañ gaawaan demagul Gabon leetar bii bii ko sëñ gaawaan di jot booba demagul fekki sëñ Touba Gabon waaye bi mu demee fekkee sëñ Touba Gabon loola ci nekku maam Anta Njaay Mbàkke la maam Anta Njaay Mbàkke xam ngeen ne moo doonoon way juru maam Seex Anta ak sëñ Mbàkke Anta ak sëñ Aafiya maam Anta Ndiaye Mbacke moo doon seen way jur moom bi sëñ Tuubaa di nekk ci géej gi maam seexante Anta mii fekke na ko fa bi mu ko fa fekkee dafa dikk sëñ Tuubaa ne lal bii dafa fekk sëñ Tuubaa toog ci suufu ab lal jël lal bi teg ci ay kaabi maam Cheikh bi mu dikkee nuyoo daf ne ko xaw tuut nga fekkante fekk sa turandoo alayhi salaatu wasalaam ne lal bii moo ci toogoon loolu la ko sëñ Tuubaa wax daf ne ko xaw tuur rek nga fekkante fekk sa turandoo alayhi salaatu wasalaam ndax lal bii kat moo ci toogoon ci la wax bi maam Seex nuyoo jàmmante waxanteeg moom la muy wax ak moom ba noppi bay tàggoo ci la ko sëñ Tuubaa ne ko jëlal lal bii nga yóbbaale ko barkeeloo ko daf ne ko lal bii jël ko nga yóbbaale ko senegal nga barkeeloo ko ci la maam Seex jël lal boobee démonté ko dugal ko fam ko ci ay bato ba mu agsi Sénégal bi mu dikkee mu yóbbu ko Daaru Salaam sampal ko way juru way juróom wu jigéen maam Anta Ndiaye Mbàkke mooy way juróom wu jigéen mii Sëñ Tuubaa naan ko nuyul ma jigéen woowa nuyul ma ko ak mbokkam mi mbokkal ndey ak baay wa shaqiq wa saqiqa ak mbokkam woowee maam Anta Ndiaye Mbàkke la Sëñ Tuubaa jublu gis nga lal boobee ko Sëñ Tuubaa joxoon moom maam Seex mu dikk jox ko way juróom addiya muy maam Anta Ndiaye Mbàkke keroog bi maam Anta Ndiaye faatoo laal booba ca lañ ko teg jëlee ko Daaru Salaam yóbbu ko deqali fañ denc way juru sëñ tubaa maam Mor Anta Sali mooy fañ denc sëñ tubaa maam Mor Anta Sali fa sëñ tubaa doon wàqanteeg ñoom ci xaalul yar kan li abwaabi solaatin keroog bi ñu denc way juróom wu góor woowu te doon ko wax naan ko dañoo bëgg ñu ànd nga dem ci buur bi Lat Joor nga jaalee ko ko waaye nag nga takkoo ak Lat Joor su ko defee mu di lee dimbali ci wàllu àdduna mu yoral la sa kër di la joxe dépense wala bokk yoral la sa mbiri àdduna foofee la doon waxantee ak ñoom naan leen sant naa leen gërëm naa leen maa ngi leen koy jaale man naa dem jaale ji ko ko waaye dem nag di sàkku ci moom mu di ma dimbali ci dara loola moom duma ko def ndox man ndimbal duma ko sàkku ci dul yàlla fa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi waaye wala suradiya xayra al ilmi wa diin lii la sëñ Tuubaa waxoon xaadimu rasul kon loolu moo doonoon leetar bi bi nga xam ne moom la joxoon maam Cheikh Anta yónnee woon ko ko ne nag nag ma nuyul sama wayjur wu jigéen ak mbokkam mi mbokkal ndey ak baay sa nijaay ak ku ñoom ñaar ci képp ku nekk foofu rek maa ngi koy nuyoo xam naa ne bëggoon nañ leetar bi nga xam ne moom la yón moom la yónnee woon sëñ Mbàkke Buso bëggoon nañ leetar boobu bokk ci waaye dafa mel ne xam naa ne li ñuy euh, sóoroon ci waxtu wi daa mel ne daf ñoo xaw a dab ndax li duuf ci nag wi daa xajandoo wutoon ci cin li dañ doon euh, jukki dara te xam nañ ne beneen leetar bi buñ ko tàmbalee incha allahu taala du xaj ci waxtu yi loolu te xam naa ne dañuy tënk foofu rek leetar boobu nga xam ne moom la Sëñ joxoon maam Seex Anta waaye it mu am ay jàngat yu bëree baree bëri yuñ ci mën a jàngatee mooy tawxiid ji nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa am ci moom bi muy tàmbali wax na ne doy loowut kenn ku dul yàlla alxaniyi billahi taala an kulli rabbin wa kulli tabib mooy moom kat doyloowut kenn muy buur ku dul yàlla tabaraka wa taala waaye it nag moo xam soxlas àdduna la moo xam soxlas alaxira amul kum jàpp ne moo mën a faj aajum ku dul borom bi tabaraka wa taala moom mooy boroomam moom mooy ab docteuram lu mu ci yaramam moom mooy ki nga xam ne moo koy faj waaye nga gis ton bi muy waxee bi muy wax ak Cheikh Sidil Muxtaar muy maam Cheikh Anta nga xam ne rakkam la moo ko yilif nga gis bopp teggin yi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa jëfandikoo ci bi muy wax ak rakkam ak ni ko sañee digal waaye bi mu dikkee bay wax ak magam nag yaa ayyuhal kabiru la wax yow mag mi yaa muhammadu yow kilifa gi yaa ayyuhal kabiru yaa muhammadu la ko wax waaye nga gis it uslub bi nga xam ne moom la soppi ci biir xasida gi te lépp genn xasida gi mu tënkee ko ci wa maa saaltukum min ajir loolu it doon lu jafe jafee jafee jafe jafe ci loo luga arabiya mooy benn ayib alquran nga jël ko tënk ci xasida benn xarab bu ci nekk nga def ci ak awway loolay di lu jafe jafe jafe jafe jafe waaye nga gis bi muy wax ak borom saam critères yi nga xam ne moom la fàttali ne ñun kat ñun askanu Mbàkke moom lañu ñu yàlla ba baaxee muy ñun kat yéen kat li doonoon seenu taar naka jekk mooy xam-xam ak jëfe xam-xam ak ay teggin kon xam-xam ak jëfe xam-xam waaye nag ak ay teggin wa adab xam ngeen ne xam-xam bu àndut ay teggin xam ngeen ne sombu bi amut sombi bu la waaye ay teggin it soo àndut ak xam-xam sax day sëñ Tubaa nee na yox fii jahalatan wa qubha nasab kon xam-xam baax na mënta ñàkk jëfe xam-xam baax na mënta ñàkk waaye nag ay teggin moom it mënta ñàkk kon seenu taar naka jëkk liñ leen xamee yéen waa Mbàkke mooy am xam-xam waaye jëfe seeni xam-xam waaye am yar ak teggin su ngeen ci saxee yàlla fegal leen mboolem luy aw ŋàññi waaye léeg leen nga dégg ñu ne sëñ diw nangam moo def nangam buñ ne sëñ diw nangam moo def nangam rek jàppal ne falaasi mu ha kooku moom taqoowut ak la ko la sëñ Tuubaa wax ne mooy seenub taar saa yoo xëttee ndigal li rek loola ci fekk loola ci war a fekk fekk la ci mooy nit ki saa yu defee lu mu def lu ko ci war a fekk fekk ko ci xoolal gis nga bi mu ba tey nga jàngat ci ni bi mu tuddee way juram muy Mamoor Anta Sali awlaad yi awlaad yi waalidi yi lu mu wax jazaahullahu anni xayran kathiran yal na yàlla fay ko waaye yal na yàlla yërëm ko waaye yal na yàlla jéggal ko moom mboolem ay way juram gis nga léegi nag ñun ñun dañoo tollu ci dañoo toll ci level boo xam ne jéggi na layu parce que kilifa goo fi tudd ne na ko yàlla yërëm ñu ne la yow xanaa da ngaa doof yàlla na yàlla yokki leeram rek lañuy wax est ce que am nay leer te taas ñu ci barkeem ndax am na barke. kon mbokk yi yooyu sew sew la yu am solo yoo xam ne mën naa bàyyi xel sëñ Tuubaa mu Rasuul baayam laa wax baayam li muy am am am cir ci yàlla moom bi mu ko tuddee dana yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ku la wax. moom sëñ Tuubaa yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko la wax am na mbind mu ñuy faral di tasaare ne moom la sëñ Tuubaa wax ne képp koo xamante ni bëgg nga koo ñaanal dee ko jàng gis nga mbind moom boo ca demee lañ koy fekk mooy yal na yàlla dolli ko jéggal te yërëm ko kon muy sew-sew yu am solo am solo am solo di ay jàngat yoo xam ne ñoo ngi ko doon def ci xa leetar bi nga xam ne bindoon na ko Seex Sidil Muxtaar waaye xasida gi nga xam ne moom la ci bokkale tënkee ko ci wama saaltukum min ajir lii moo doonoon seen émission keppaaru mag ñi mbokk yi tey ngeen doon ko topp ci seen télé Rewmi TV doon ci ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke euh, Cissé mooy ki nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarala gi di jàppandal kàddu geeg image yi ba ngeen man ko ba ngeen mën a jàkkaarloo ak moom Léon mooy ki nga xam ne moo ko doon euh, jàppandal ci 97 point 5 ci rajo bi mi FM lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadik doomu aadama la di dool doolee ñaanal bu baax a baax suñu kilifa alxaaji Mbañik Jóob di ko ñaanal suñu borom sàmm ko waaye it may ko kattan waaye yokk ay xéewalam ba nga xam ba mottali mbooleem ay naalam di ko ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk nekk ci kër gi di doxal liggéey bi euh, alxaaji Moustapha moo nekk ci kanam ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax ni ma koy waxee waxtu ci ne rek ki ci gën a kawe ba ci man mi ci gën a suufee yàlla yàlla sàmm ñëpp yàlla yàlla mottali mbooleem seeni naal lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadi doomu aadama la in uridu ila al islaha mastatatu wa ma tawfiqi ila billah wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu ahmad sulayman bi sarfi al masiyat kayma taqud simamin lirrasiyat adal idha izdada qalbi kulna bahjatiha